ñee wax ci alquran loo xam ne ay caaxaan la naan léeb la wala njabar la wala daal dañ koo fent ak yu demee noonu seeni wax yooyu comme dessin rek dessin daa mën nga gis waaye taxul mu nekk dëgg mm-hmm. nit mën naa dessin xar mm-hmm. waaye loolu taxul mu nekk xar mm-hmm. ndax xar am na yàpp am na deret mën naa mbubu mën doxi soxlaa mën a lekk dessin boobu nag couleur rek la waaye du xar rek la wax de du tuus loolu yëpp mënu ko dégg nga moo tax loolu ñuy njort ci alquran dafa mel ni dessin ay waxi kese la yu nekku dëgg rek laa wax de loolu la bëgg a wax comme ni nga xam ne dessin bindi kese la bu nekku dëgg mm-hmm. wala nga ne mm-hmm. jàngaloon na la wàcc waaye tijiliyaat yi mm-hmm. ba ci melo yi waaye lu nekk am na cosaan mu ne yeneen wax yi nga xam ne ay njortu rek la ñeen njortu xëyroo xëyriyaat seen i wax daal comme ay dessin Hmm. lañ yaakaar dañ ko yaakaar rek waaye taxul muy loolu comme dessin rek waaye yaakaar nga ne xar la waaye taxul mu nekk xar rek laa wax de hmm. leneen loo njortu dul yàlla noonu la mel xawloo hmm. xam wala xaawilu wax ya ndum fa ñoom wooyee ñoom ala xaawilu mooy wax ya al muftariyaat yañ fent fi alquran ci alquran bi qawlim seen wax naan woo moom seexul njabar la aw saatiru awalina wala mu ne léegi wooy njëkkee la aw woo wala loolu xawlu mooy seen wax ji naan innamaa yuallimuhu naka dana ko xamle basharun mindeef mhm. waa ñu ne alquran nit da ko jàngal yonent bi rek ba mhm. ko zaanak ni xawlum seen wax naan asaatiru awal yi leen lébi way njëkkee la mhm. iktataba waa bindu na ko rek laa wax de faye moom tum laa dañ ko fite ale ci moom bukratan suba waa si la ngoon ñu di ko ko wax mu di ko bind ilaa xëy zaalika ci loolu nu juy iftiraay ci anami fen alati nga xam ne iftarawa nar nañ ko fi quran ci alquran xaala mu ala xaawil waxi en dum fa ñoom mhm. ka tamaasili comme ay lépp comme ay dessin kon wa mhm. tamaasilu dessin yi hiya moom mhm. wadu tamaasilu suwari mooy teg dessin photo yi al mutaharika yi yëngatu fi tirit bi waaw ci ci waaw cuubu yére wala judraan ak si nga dessin mbir mu yëngatu ci yére ak ci miir waxee de haa dul loolu feneen tilka tamasil nag yooyu la desee laa tonti du joxe min a xaayi ximis ya si dëgg-dëgg la mel ni moom seen dara boo bindoon daal lay dund ci ab yére wala ci ab mm, miir taxul mu nekk loolu misaan kata boo nit ki ñu bind mm. suratan baxli melo bax la masalan ci misaal ci ab miir ne lii baax la la taxul mu nekk baax la wakka saa nekk noonu xëy loolu dul baax la mi ne xayawaanaat ci xayawaan yi mhm. wattu yóor ak picc yi mhm. fene tilka tamaasiir yi naka yooyu la desee mhm. xaqiqatuwaa seen i dëgg-dëgg zuurun ay caaxaan rek la laa tontu du joxe ne taqiq ci dëggal seen dara taxul mu nekk xayawaan yooyu de ya ngeen jot yi noonu la mel ak la ñuy wax ci alquran ci ay nar ay waxi kese la daal laan na xayawaan ndax xayawaan hmm. ataayir buy naaw masalan ci picc hmm. wa saari wala muy dox hmm. kal farasi comme fas wa xeyru ak yurul masalan ci misaal ah bay na xay ngi si diggante melaw ak kayfi ak ak bu ñuy doxee royetoo gis leen rek tux nii dana doy an was fii ci melal leen boo leen gisee rek xam leen wa tamaasiluha seen i dessin ak al musawara yi defal melaw laysa nekkul fi ci moom xarakatun mm. mm. maas wala mm. tayraanu naaw nekkul ca wala xarakatun yëngatu ca wala dox wala maa du caageen la nga xam ne Yustafa du danañ ko jëriñu mine xaywaan ci xaywaan fi rukku biha ci war koom mm-hmm. aw xal biha wala ratt ko aw zabiha wala lendi ko mm-hmm. waa kil laxme ak lekk yàppoom mm-hmm. aw ilhamdu wala nga sëf xale yaa ci moom ne asqaali ñeer yu diisi mboolem dessin yi mhm. xamuñ loolu mhm. kon dessin yooyu taxul ñu nekk xaywaan yooyu de mhm. te xaywaan yi am nañ loolu fene tika tamasira naka yooyu la dessin laay sofaatu jëriñuñ minaa ci ñoom minaa ci umuri ci mbir cheyun dara fay kon ñoom zuurun ay neen neen lañ waftiraawoon luñ fent la isa utliqa buñ jooyle alay ci mu alaya ci moom hmm. ismul xaywaan turu xaywaan foofu hmm. loolu zuuru neen la rek de hmm. li mu faaraqati ngi tàqalikoo gim tàqalikoo leen xaywaan yi ñeen ah. fii ci même yi ci yow it la nga wax ci alquran alquran wute naam loolu ci mbooleem xanamam kon loolu nga wax dëgg ay neen rek la rek de kazaalika nag noonu la mel ala qaawil wax yow al muftariyaat yiñ fenti fi alquran ci alquran lam tontu joxewut mën a taqiqi ci dëggal seen dara inamaa yi naka moom suuru neen la rek de kazalika comme ni nga xamee lang ne dessin gi nga desee mooy xarma neen la leen al quran ndaal quran fii taqiqi mabaani yi ci dëggal ay tabaxam wa taw maani ak leeral ay maanaam wujuna saati siyaqi ak anami setak màngam ni muy rabee wax yu wakas ak wuññi gu muy wuññi umuri ci mbiri almoxee baat yu fadd yi wa makaarimi axlaaq ak wuññi gi muy ak joxe gi muy joxe jikko yu tedd uma asimi adaab yi ak teggin yu rafet yi même maa ci la nga xam ne daal yoo xam ne mënuñ koo takk. même maa ci la nga xam ne sama lambonaare ci moom alquran alquran. kulu zaalika loolu lépp. béy aji leer la. li tamit moom xooli borom xel yi. laa yaqduru zu aqlin borom xel. an yunkira mooy di minu ci moom shay'un shay'an dara. lépp lu baax daal alquran mu ngi ci alquran. loolu ko am xel du ko wedd. كنوا ما زغرفوا لن تارل في جعل القرآن من أقاويل جاي وق المزورة يدين تاررك بين الكذب كل لير أك نار لازم لازم نقول إن البرم قلي أصلي ما يمشي كيف قام قلم مشرك لا قمنا لن تارل جعل القرآن وقو جاي وق نار دق قولوا وجوان فرايهم أنك بمنا دفلوا alxutba way xutba yi yaani dama ci namm xutba arab yi ci arab yi laa yu mën naka buñ la desaloo defaloo mi ne fi fii caay wax yuñ taaral almus war a yëreñ waaw rafetal ko rek laa wax seeni wax yooyu bu la jaxase ndax du dëgg wute naag alquran ci mbooleem anamam qawloo waxam radiallahu anhu yàlla ko yàlla bu seeru kama baanat ñaati yoon feeñal آياته كاتب القرآن من علوم من شيء قم قم يقم نه آه. دينغ آه. أنا حروف أنا حروف في الموج جي شعر في يقم نه أنا فين لا أنا شعر في يو أي جاو هر حروف في جاي ده ما يعرف يجي حروف في جاي مو ألف با تا سابم جيخ نيو فين لا عرف القرآن نخ نيوم جاي بوله ما عرف القرآن هل في القرآن يو فين اي اي القرآن اي يو فين اي قم قم يقم يلا رك قم تول رك لا ورد كنا عرف نجا عرفوا حروف جاي نجل أم حرف القرآن حرف القرآن يو بولكو هم أي لا لا يو نك جن لا قم قم يقم يلا رك قم تول رك لا ورد نعم. قال من كم أبانت ñaata la feeñal ayatu aya alquran min wala min ci xam-xam yaani muslim ayatu alquran aya alquran wa tilka ibanatu boobu la feeñal min hurufi ci araf yi mu ngi jugee ci araf yi de aay yooyu mu ngi jugee ci araf yi yaani muslim huruf yi jaay araf yi jaay de wa tarakabat toggaloona kalimaatun baadiya jugee ci huruf yi jaaya wal kalimaatu baadiya nag tarakabat toggal na ayatu aya alquran yi wal ayatu aya nag abaanat feeñal na العلوم قم قم التي قم أبانا فنيل أنا تموم القرآن القرآن قم قم القرآن فنيل لا القرآن لولا فنيل لا واو قم قم ينك لا نهاية ديتك دويتر واي لا هادي كنيل ولا تفرق الجيخ بمك إلى الأبد بفاو waaw moom xam-xamee alquran de moo alquran jamono ju nekk yàlla mën naa génne koo xam balal na ci maanaa boo xam Mm, way njëkk way mujj kenn mosu koo dégg te dëgg rek la ndax xamul lu ko weddi waa ndax laay alquran yi ak maanaa alquran yi maanaa alquran yi nekk ci biir laay moo du jeex loo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax na jottali leen rek la ngeen déggee ci man ndax bëri na koo xam ne dañ koo jottali moo ëpp dégg ko déggee ci man loolu wane na ne wooy mujj yi mën nañoo dégg loo xam ne wooy njëkk yi sax dégguñ ko woon te dëgg la ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la jógee waaye te buy ñorul benn hmm. yaqulu ma wax sallallahu alayhi wa sallam hmm. ña hmm. laa tanqadi du jeex ajaay waay kii maanaam ilaa yawmal qiyaamati ba kër bis penc kon képp ko wax ne way njëkk yi lépp alquran wax nañ ko waxu dëgg ndax ko muy wax ne mu ngi bëgg wax ne maanaa alquran yi luy jeex la waaw baaw xeet wala ay nit mën a wax lépp alquran ay maanaam kenn mënu wax lépp ba mu jeex dangay wax rek eh, la nga ci xam yàlla dana xamal nag jaam bu ko soob la ko si soob bañ na wax yàlla la rek nga war xam ne kenn mënu koo firi bàyyi maanaam jeex rek laa wax de kon ku ne na ci xam-xam goo xam ne yàllaa ko ci xamal waaw waaye nag na tegu ci njub rek de araada na mun a sallallahu alayhi wa sallam an na wone moom fi kulli asrin ci jamono ju nekk yuftahu dinañ ubbi ala ahli zalika asri si ñooñu jamono ñooñu boobu la jamono min ulumil quran ci xam-xame alquran wa maani ak maana alquran maana nga xam ne lam yuftahu ubbi luñ ko ala man qablum ci ñeneen njëkk min ahli ansari si ñooñu jamono de Cheikh Tidiane yonentu dafa bëgg wax ne jamono ju nekk yàlla dana leen feeñal ci xam-xame alquran ak maanaa alquran loo xam ne ñeneen jiitu woon amuñ ko woon waxaa kasaata nii lay demee daa yawmal qiyaamati ba bis penc kon jamono bu nekk rek déglu sa ñoon jamono nañ la firil alquran nga jël ko ndax mooy def foog say xam-xam rek laa wax de waxaa kasaa nii lay demee daa yawmal qiyaamati ba bis penc falaa nihaayata di rek doytalu waay li xaloo mi ñeel xam-xame alquran wa maarifi ak maarifa alquran ilaa yawmal qiyaamati ba bis penc du jeex xawloo waxam moom bu seeru radiyallaahu anhu yàlla ko yàlla gërëm mu ne fa yee moom alquran kalaab bi comme pepp buñ ji ci suuf wan waa ak saalab saal guñ ji ajaba xéem na asduraamu baykat yi minu ci ñoom sanaabilun ay gub wasakaawun ak ak màgg de dafa mel ne pepp boo ji wala saal boo ji mu génne pol ak gàncax ak i peer hmm. génne meññet ak ay gub yu xam pepp mu bari yëkkatiku googu nag ak gub yooyu ak meññet yooyu daal di taaru ba xim baykat yi rek laa wax de hmm. alquran yi noonu la mel ay laaya la yoo xam ne hmm. yàlla génn na ci ay njariñ ak ay xam-xam ak ay maanaa yoo xam ne xim na képp ku yàlla def ci xolam leer يعني المسلم آيات القرآن آية القرآن شبه مؤمن الوقت بالحبة تبيب والنواق سال للزراع يا نيال نكو باي وغارس يا نكو جمد فإنو نكو مم يبدو دنا فين لهم نيالان من غرس يا سنجمبم وزر يا أجيهم في آخر أمر يا تموجم برم لنا جيون ولا لنا جمتون تموج غلاي فين لشي فين ما لا يقبل يكون نكو نون يعلمونو ديكو قم من أنواع سماري جقيت منيت غسنا بيرا غي dana fa feeñ rek laa wax de kazalika nako noonu ayat alquran ayat alquran waaw ndeysaan moo tax mujj xeet waaw xam-xam yu rëy dina ci génn yàlla yàlla may dégg nag li taaliya ñeen ku ko jàng bi surutia say satam barasa feeñ na fi kulli tilaawatin si jàng gu nekk min wala ci xam-xam maanaam yakun lu nekk doon yàlla moo di ko xam xablu bu njëkkoon alquran saa yoo ko jàngee rek jàngaat ko war nga cee dégg maanaa bu bees su fekkee maanaa ba si njëkkoon dégg moom nga ci déggaatee ba léegi yow xamal ne jàngoo alquran rek laa wax de xawlu woo xam ne daa ne ko yàlla gërëm faataalu guddal nañ fii ci alquran mm-hmm. ataraduda déng-déng waray baak sikk mm-hmm. ñoom xéeféer mm-hmm. fa xaaloo ñu ne seexrun la wa xaaloo ñeneen wax ne iftiraahun ak ak fentere rek laa wax de يعني المسلمون في القرآن كان القرآن لن بري لاي دنگ دنگ وي موم على قابل مزورا موي وخي نغا خامني تارا لن كو التي نغا خامني قالو وخ نن فيا موم نسير جبر لن وقالو ني افتراء اك فنت بري لن وخ دال وخ نن لولي نن جبر لا فنت لا نانغام لا نانغام لا لولي وخ نن واو تي القرآن رك دي واي دارا دو تي دغ قال مو موم بوسير لا نالو كيالا گرم ne waydal bayi naatu hmm. ndem lay yu weex ya hmm. lam tux ni jëriñut chan dara hmm. faltimaasul huda sàkku njub biin na ci lay yu weex yooyu ana aw nag coono lay indi mooy la waaji waxoon fa kayfa yasihu yasixu fi l azhaani cheyun isaxtaaja nahaaru ila dalilin bu demee ba bëccëg di laaj tegtal pour xam dëgg pour xam ne lii bëccëg la naka lay dara di ci xel de bëccëg soxlawul tegtal mhm. waaye bu ñu ne la bëccëg nii nga ne nga ne ana tegtal ba mhm. naka lay dara wératee sa xel mhm. waaye ay alquran yi bu la jëriñu dara bëgg ku la day sonn rek waaye dootoo jubati maanaam alquran dara uh-huh. leneen lu waaye jàpp ne moom la lay jubal coono rek la ci am ndax yow la waroon gindi gindiwul la kon amul lenn luñ mën a teg sa karam ba man laa gindeeti rek laa wax de coono rek la lay yokk <laughs> yaa ngi mu ci namu mm-hmm. isa kaanat bu nekkee mm-hmm. albayinaatu weexete mooy laay alquran yi mm-hmm. lam tufit jëriñ jëriñut albayaana li naazira ha ñel aji setantal ko iltimaasul huda sàkku njub bii na ci ñoom wa sallam li baadi axbaari yahudi kenn ci fóori yahudi wa kaana nekkoon alamu zamaani di ëpp xam-xam alamu ahli zamaani di ëpp xam-xam ci ñoon jamono yi إلا أنه لوين مم شاب دولة قليلا قليلا هون قلب يهود بو قمنا شني أبون قم قم شي يمون جوج لبوك وجد فكنا صلى الله عليه وسلم في انقطاع المدقان القلق ويز من دفي ليس نكو إلا هما لوين يوم نعر يرون توك ندولو رك ñoo يرون تبي لاش قلبي laaj موقع صلى الله عليه وسلم للهبرين ko sallallahu نكو يا فلانون lil آه. e yow diw mhm. ana man almawsuufu maay ku ñuy melal fi tawraati ci tawraat wa zakara mu loo ñeel ko sallallahu alayhi wa sifaatu ay melawam fi dalika al mahal ci boobule barab mais tawraati ci tawraat yonentu ne foode bi man maay ki yàlla di wax ci tawraat mhm. foode bi daal di ko jàngal barab yàlla wax mel yonent bi yëpp ci tawraat ne ko wax nga dëgg de قال مو مخ مو يونت بي لو نيل خالي بوبو نكو تزام ون لو تانغي ني هوتي اني ني مان لاستو نيكوما بي دي واجوجو يعني المسلم ذلك الموصوف كوكو ني ميرال يونت نكو لو تخ نك غي ني واخ ني مان نيكوما واجوجو دينا ريك فنصر مقول اي برو فوري با يمين انداي جور ندا دنا غيس كنم ديت وشمالن اك تشاموي ندا دنا غيس كنم ديت فلم يرا غيس ادن كن فقال مو لو نيل يا محمد يا محمد kullu an baari yahudi mboolem fóode yahudi mutbiquuna way dëppoo lañ aalimuuna way xam lañ annaka na yow almanawut yaay ki ñuy melal fi tawraati ci tawraat min xëy shakkin ci lu sikk wala lay biin amul benn werante ñaareb sikk lay firi rek waa ji xool nday joor ak càmm mooy gisut kenn mu ne ko yow Muhammad fóode yahudi yëpp ànd nañ dëppoo daje nañ xam ne yow la yàlla di wax ci tawraat kenn werantuwu si kenn sikkut si amut sikk fiim ci ñoom de dégg nga dégg nga maa fiim nekkul ci ñoom mën a kuy réere xaasa lii waaye taraddadu muy deng deng fii ci moom xamut ci fóode yow yi kuy deng deng ci lii wala mu ci sikk wala ku ko ñoom ñëpp xam nañ ne yow la waaye dañoo xañaan aw kama qaala wala comme comme wax loo ñeel ko ihru fóote bi mi maa ci nga xam ne maanaam maanaa ga xasa lii la fóote bi daal la wax yonent bi léey maanaa ma su ma qaala topp mu wax moom fóote bi ne walakin waa li fi ne xalabuhum not na leen alxasadu añaan wa ana man minum maa ngi bokk ci ñoo xañaan noonu mu ne ko añaan rek moo tee ñu seedeel la ne yow la yàlla di wax ci tawraat te man suñu xañaan ñooñu laa bokk aadana yàlla ñu yàlla musal laa loolu lañ jàpp ci alquran moo tax bu demee ba boo xam ne lii dëgg la jariñul la ah ku la ku la bëgg a waxati loolu pour jariñ la dafay sonal boppam ndax laa yi muy indi ci alquran di ko teg tuloo yoo xam nga ne dëgg la waaye añaan moo tax gëmoo ko kon indi la laa yooyu coono rek lay indi waaye du jariñ dara loolu waral léegi-léegi noppi dafay gën a jariñ wax ndax léeg-léeg nga yem ci barab yoo xam ne ña ngay wax ak xóor na la la ngay wax yëpp xam nañ ko waaye ñoo jiwul rek wax ji coono rek la rek laa wax de barab yu mel noonu nit du ci sawar wax way daa dalat nam réer na alaqulu xel yi alaa añ min ci kaw xam-xam fa maasa taqulu ana lan lay waxati annu saaw ñey laaya biir ku xam ba pare réer yow mi koy digal loo koy wax xam na ba pare toppuut njub ana loo koy waxati rek laa wax de yaa ngi lu mu ci namu an na loo xoolee na dalat <laughs> bu ñu réeree ala taam nañ xam-xam fa maa tufiiduhaa du ko jëriñ an nasihaatu laa biir ga cheyan dara de xam ba pare réer kooku kenn mënatu koo laa biir ba mu jëriñ ko yàlla na yàlla musal ci jikko jooju moo tax boo dajee ku xam di ko waar doo xam loo war wax ndax la ngay wax yëpp xam na ko waaye dafa jubul rek ndax ndax topp ba kanam ndax beew kooku da ku naqaree wax la rek laa wax de in uridu lil islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh